المصطفى نويت ما يجدد de télévision culturel et religieuse waaw chaîne bi jug taxaw temm ngir yaatal lépp lu jëm ci wàllu diine rawatina njàngaleem Serigne Touba Cheikhul Khadim moo fas yéene nag gën a jege askan yi fépp fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew ngir jàppale leen ci bépp xeetu événement boo xamante ne bii yéen a koy amal te ngeen soxla wàllu couverture médiatique waaw publi reportage réalisation documentaire téléfilm waaw wala lépp lu ngeen mën di soxla yéen ñiy organiser ay màggal canti gàmmu gàmmo yi cérémonie yi Rafah TV amuñ ci morom soo bëggee ñu filmeel la diffuseel la waaye boo bëggee itam ñu filmeel la jox la say image wala say vidéo fépp foo bëgg nga yóbbu bu leen am xel ci jokkoo ak ñun 77 433 39 39 Rafah TV waaw moo mën ci seeni événement walam yaasi suñu subaa sëñ bi mi ngi lay nuyu bu baax baax te la sant ci taxawaay bu baax a baax ne lii nga ko lii nga ko dugal itam boole ko ci itam loo xam ne lu lu ci moom la lu am ci moom solo lool ndax ni ma ko waxee léegi rek wàllum wér yaram moom du ko du ko du ko fooy du ko caaxaane rawatina nag mu jëm ci wàllu wàllu wàllum fajum fajum fajum tubaab kon kon nee na liggéey bi moom ab liggéeyam la lépp lépp taxawaay bu ci am loo xam ne yéen a ngi ci da ngeen ko ci dafa jàpp da ngeen ko cee wuutu rek waaye loolu liggéeyam la loolu taxawaayam la a doon kon kon mi ngi mi ngi sant ci loolu bu baax a baax a baax tey ñaan yàlla suñu borom nag eh, liggéey bi ngeen ngeen sumb suñu borom dafa ay tawfeex yu rëy rëy ba fu ngeen fu ngeen fu ngeen nam rek fu fu ngeen fu ngeen fu ngeen fu ngeen ci bëgg a yegg rek suñu borom dafa leen ci tawfeex yi nga xam yi nga xam ne tam mu li li ngeen li ngeen di yëngatu mooy lu seet wàllu wàllu jàngoro joojee suñu borom takkal ko ci àddina bi yëpp képp koo xam ne yàlla nataloon na nga jàppale napp natt rek ndax mi ngi ñaan yàlla suñu borom teggi teggi teggi ko ñëpp ay ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñi nga xam ne daal liggéey liggéey bi liggéey bu am am solo ndax ko xam jàngoro ji ni mu mel ak xam ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu dangereux kon ku ci saafara kenn kenn nit képp benn mbindeef yàlla rek jàppal na jàppal na sofe nga mbindeef mbindeef yëpp ndax ndax jàngoro la joo xam ne ju doy doy waar la kon as aska maag nag aska nag bu buñ ko defee ci façon bi nga xam ne dem na ba mën a taxaw mbooloo mu bare bare bare bare bare bare loolu kon la ca nekk ci ci ci ci liggéeyal yàlla la ci nekk ci ngërëmal yàlla kenn xamul nu mu toll waaye nee na loolu nag moom ah, dénk na dénk na bàyyi lépp ci loxol yàlla bi nga xam ne moom ngeen di liggéeyal liggéey boobee suñu borom nangul leen lépp bañ a dox seen diggante dara loo xam ne luy luy luy kon mu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di di gërëm ñëpp. centre bi bi ñuy lancé travaux travaux ci kanam sëñ Muntaxa euh, sëñ euh, euh, sëñ Koso ki yor loolu ki yor ñi nga xam ne ñoo yor liste beeg machine yi fi jotoon a nekk jamono yooyu dañoo wax wax boo xam ne ñëpp seen yaram dafa taw dañoo wax lim bu bari ne ñoo nekk ci liste d'attente waaye léeg-léeg benn place am te loolu sax li muy bari am bariwut ndax kenn ay faatu ndax daanaka bu ko defee ñu ñuy jël ci liste d'attente bi nee dañoo commencé di woote ki nekk ci premier place. ñu ne wàcc na liggéey deuxième wàcc ba daanaka cinquante ñu door am kuy dund loolu loolu yëngal ñu baree baree bare loole itam nag war nañ ko fàttaliku ne situation boobu ba léegi mi ngi yokku waaw ndax euh, maladie bi daanaka day ba gën a gën a tasaaroo te it moyens yi demewul noonu te ku ne xam na ne mbirum rein ak jalis lim lim soxla ci alal ak ay jumtukaay euh, diis na lool ci ku nekk kon nag jàppale gi ci liñ ciy def lépp ñu ngi koy jàppale état bi di leen sant ci liñ jotoon a def di ñaan murit yëpp gën a takku ci lii ak leneen. wax dëgg fa yàlla bu ñu amee centre bu mel nii war nañoo santaat sëriñ Touba bu baax ndax yaakaar naa dem ci réew mi gis fa sant bu toll nii yombut sëriñ Touba nag yàgg naa am lu kenn amut kon ñu ngi sant bu baax a baax Serigne Mountakha di ñaan yàlla guddal aw fanam te wéral ay cëram ndax ba mu ko yëgee ba nëgë ni loxoom jógut ci ñun ñu ngi sant association te Assane Thiam jiite ko teew fii Mandela Thiam bokk ci mooy tamit ak jigéen ñee toog yëpp ci lañ bokk kon war nañ cee taxawaat beneen façon taxawaay taxawaay boobu nag mooy lan mooy di sensibiliser nit ñi di wax lan mooy feebaru jalis nan lañ ko war a mën a moytoo te di leen xamal nit mun ta faj boppam saa boo yëgee sa yaram loo xëy daw ko ci yëg daw dem kër docteur ñu xool la seeram yaram te moytu ne di faj sa bopp ndax mën na la jural ay gàllankoor te ma maa man moom doon la mënuma mukk man naa rek lay wax ndax maa man la tudd soo demee mu xóoyal sunguf jox la jox lay ren jox lay saafara te loolu fajul jalis ñun ñi mu dal dégg nañ lu ne gis nañ lu ne waaye xam nañ ne fii la suñu faju nekk fii la suñu ndariñ nekk kon nañ gën a bàyyi xel loolu ñun kat feebar nañ am nañ ko ñu faj am nañ luñ faj am am nañ ñu ñuy taxaw waaye nag yombut am nañ ko waaye yombut ndax bari na ñoo xam bi ñu ngi bindu ci liste yi di dem ci région yi wala fu ne pour di faju ñenn ñu ngi bindu ci liste bi dem ci privé bi di fay 65000 pour benn séance te war ko def ñetti yoon semaine bi loolu kon nañ ko moytu bu baax baax a baax ñu sant mbooloo mi fi teew ñëpp di wax ne sëñ Mountakha Mbacké ki ko fi teewal na ko wax ne ko malaatu jellisee gis nañ taxawaayam ñu ngi koy sant bu baax ca waxaay bi am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yam hôpital Ndamaatu gis nañ fi seen taxawaay parce que seen personnel bi yëpp ñu ngi fii ci biir docteur Sow xëy si fi yow toondoy màggat sant nañ la baax ndax bañ la waxee bés bi tamit ñëw nga taxaw ci ñu ngi lay sant baax a baax président Moustapha Diakhaté nag mënuñu ko fay yàlla rek lañ koy bàyyil lim ñu defal lépp ci ay teraanga ak xéewal bokk na ci lii fi tege ak yeneen ak yeneen bu ñu ko doon wax duñu fi jóge kon yàlla lañ lay bàyyil ak sëriñ bi nga xaay bi moo la tax liggéey te moom mu jar ko ndax moom am na fay ñimul bor kon yàlla na la yàlla fay jiital ci nuyoo bi sëriñ mi nga xam ne Cheikh Ibrahima Mbacke moo fi teewal sëriñ Mountakha ànd ak sëñ Xaadim nuyu sëñ Modou Mbacke nuyu sëñ Xaali Jaxate ñi ngi nuyu bu baax docteur Ndeye Maguette ak directeur Matar Lo ak équipe am bi mu àndal ñi ngi nuyu docteur Samba Niang mi nga xam ne moom moo jiite barab bi ñu nekk ñi ngi nuyu bu baax Moustapha Guèye di ko yóbbante nuyoo ci malade yi nga xam ne ñoo fi nekk ñi ngi nuyu bu baax sëñ Mamor Dem ak mbooleem suñ mbokk yi nga xam ni ñi ngi fi nekk di nuyu sëñ Alaaji mi nga xam ne moo doon taxawu kaamil yi di di kontaan bu baax ci kàddu yi nga xam ne jiitu na fi muy kàddu kàddu yoo xam ne ay soññee la ci ñun waaye ñuy sant ci kaamil bi li tax ñu ciy sant mooy dañ koo defoon daaw fekke ko ren yàlla nañ ko fekkee déwén di lu taxawaayu way docteur yi bu baax a baax di sant nag mbooleem koo xam ne bis bi itteel na la ba nga jàpp ci waaye bis bi dafa am luñ ci jublu liñ ci jublu du ñëw rek malade gis ñu ñu dem dañ cee jublu ku fi ñëw ku nekk nga jànge ci ni malaat bi fi nekk aaja na ku ko dimbali ñuy jégalu di nuyu Cheikh Tidiane Ndiaye ak ñi mu àndal jógee Mbacke euh, jàngat boobu dana tax malaat bi bu jógee tey ci kër di dem ñamuy bàyyi xam ne kii ci coono bu metti la nekk ñu di ko sóoraale waaye di jëli rendez-vous ñu naan jëli na rendez-vous rek te kii jëli rendez-vous doo xam la muy daj loolu war nañ koo jàngale bu baax a baax ci bis bi pour ñu xam ne malade yi sonn nañ beneen bi ci desit mooy barab bi ñun bokkoon nañ ci ñi ko yàlla jaarale ci suñuy loxo di nuyu waa maawo ñii nga xam ne ñoom it ci xeex bi lañ bokkoon muy Assane Thiam ak ñi ma àndal day lu yàlla jaarale ci ñun waaye du sunu njàmbaar ndax sëriñ Touba dafa tënkoon ci mat la Matlabul Fawzayni loo xam ne bu dee dégg nañ ko man amoon naa fitu Serigne bu ma ci jàkkaar lool dinaa la wax ne buñ yaafoosee du ñëw waaye buñ ko jëlee mu ñëw defe naa ku topp samay jataay toog naa mbul wax sëñ Muntaxa lu ko kenn mësta wax wala bëriwul ci mbooloo te dama ne ko ñin dëkk Touba ba Umul Xuraa dëkk Touba ba Daaru Tansil bàyyi seen kër maam bàyyi seen kër baay yow mi fi toogal Serigne Touba responsabilité ñëpp ci yow la nekk waaye duñ la mën a gis buñ la soxlaa te buñ soxlaa Macky Sall duñ ko gis léegi fan la ñuy saafaraa seen jàngoor sëñ bi ci boppam tontul ma boppam ne ma ñu mel ni yéen lu ngeen ñu ca wax ñu def ma ne ko waaye sëñ bi dafa tënkoon ci Matlabul Fawzayni ay fajukaay ak jàngalekaay yoo xam ne yàgg-yàgg dafa war a ñëw te ay nit a koy jëli mu ne fu ngeen ko jëlee di ngeen ko indi te bu ngeen ko jëlee askan wi jariñoo ko loolu day yokk nit jom loolu mooy li ñu bàyyi fii ba nege ni waaye duñ ci gis suñ bopp duñ ci gis dara ñuy rafetlu bu baax a baax taxawaayam moom ak taxawaayu ku mel ni waa Carrefour médical ndax centre bi jàpp nañ ci bu baax a baax ñaareel ba mooy biñ ci jàppee ba noppi tam ñuy gunge ci fajin wi ndax kenn ku nekk xam na ni personnel bu yomboon kon xaadim rasul duñ ubbi mu am centre dialyse ba néga ni te tàmbuleegul ndaamaatu ma ngay am ay jafe-jafe ba léegi réglé kon fii buñ dee góorgóorlu ba néga ni am na ci ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ñu ciy jàppale te yàlla tax kon mooy li sëñ maam moo doon wax ne ñi ngi jàppale ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoo war a faj waaye ñu ciy jaajëfal ñi nga xam ne ñoo yor faj moomu muy directeur Matar loo directeur Soxna Ndeye Maguette ak même Samba ndax buñ ñu ci yaatalul woon duñ am accès ba mën cee def yenn jéego ndax fi ñuy waxee ak yéen bi doxut ci semaine bii fexe nañ ba ñoom jëlal ñu liggéeykat yoo xam ne ñoo koy fay salaire pour ñu fexe ba gunge ñiy faj pour saal yëpp dox loolu wax dëgg yàlla munuñoo wax lu mel nii te waxuñu ko ndax bu ci ñëpp jàppe woon noonu dana dem yëf yi nag day loo xam ne da ngay def li nga man fi nga yem rek keneen tàmbalee feneen waaye buñ buñ buñ buñ dàq njariñul kenn ndax njariñul doomu aadama dafa riche te gis nga doomu aadama dafa am énergie bu ne ci moom boo xam ne suñ boroom moo ko wàcceel énergie bi su xëyee ba jant so bu tëddën cab saalam di añaka reerit bis boobu jàll na waaye moo na bu wàccoon ab lalam ginnaaw bu mu liggéeyee ba am lu mu dundaleeg njabootam jéem a xool ñim tane ki yóotu lu mu jotul mu fexe ba mu jot ca ki feebar mu fexe ba mu am garab ki bëgg dem amul oto mu fexe ba ñu yóbbu ko loolu énergie boobu bis boobu pertu ko énergie boobu nag ñun ci la ñuy profité di ci comp ñun di ko bokk waa faj di ko bokk ak sëñ daara yi di ko bokk ak ñeneen ak ñeneen waaye du lu ñuy wut tur politique du wutuñu ci daraja may indi tuuti ci ay exemple yoo xam ne dina tax ngeen xam ne li ñuy liggéey ñu ngi koy liggéey waaye liggéeyuñ ko ci daanu dañ koy liggéey waaye dañ koy ànd ak xel ndax lu nit wax ak fu ko nit waxee ñu ngi koy dégg gis nga bu ma doon yéeg ci oto bii nga ni ma bul yéeg bee moo gën ci xelum doomu adama da ngay bëgg oto bi pneu bi kër yooyu ba nga ni ma xamoon naa ko nañ bàyyi loolu nañ fexe ba kuy def lu baax ñu ñaanal ko mu am ca ndam loolu dafa am solo lool ci nit te dama ciy woo ñëpp di ci woo sama bopp gis nga tàmbali lu baax ñàkk koo tàmbali fekke tàmbali ga ak ñàkk koo fekke du tee nga am ci tuyaaba ja waaye lépp lu waaye tàmbali ci lu baax muy fii ak fu mu mën di doon ci Sénégal yàlla na àgg te yàlla na ko ay nit jariñoo centre bi ay nit a ngi ci jariñu ñoo xam ne xamuñu ko woon ab centre nag bu tàmbalee nga ni du dem mu àgg ñu tàmbali di fañ nga ni joxut ñu tàmbale waat di taawu malade yi lu nekk nga di ko dégg bu yàggee yow mi koy def da nga am tuuti nag seen moo tax ma bëgg leeral tuuti ci doxin wi nga xam ne mi ngi am sama diggante ak bi di am sama digganteeg sëriñ bi ak yeneen personnes yi nga xam ne ñi ngi jaar ci man te du lii kese lii ab bànqaas la ci luñ nekk rek ñun waaye bu fekkee ci wàllu sëriñ bi la ak nit ñi nga xam ne ñi ngi ñuy taxaw dañ leen sant à cent pour cent bu fekkee diggante ñun la ak ordonnance yi malade yi amu ci benn malaat boo xam ne yaa ngi ñuy woo di jàmbat ordonnance te luñ la ko defe naa loolu suñu Moustapha mën na koo seere te pourtant lañ leen di fayale lenn li suñu ñàq la lenn li yëfi sëriñ bi la ndax sëriñ bi moo wax ne saabu sama bët xongee bu ma ko waxee mu def ko waaw mais sëriñ bi way juram wu jigéen maam la ci man nga dem kër sëñ Ablaye soxna Mariama Jaxate nekk maam ci man sëriñ boobu sama sëriñ la waaye sama nawle la rus naa toog ci kanamam di wax loo xam ne du dëgg ñaareel ba ma di leen xamal ni sëriñ soosu may tudd commencé ci sëñ taxaa ba ci ku mën a doon lépp luñ seq ci wàllu taraanga nga xam ne daa jëm ci ndimbalul malade yi du man maa koy saytu am nay njabootam ñoo xam ne maak ñoom ñoo koy ànd di ko saytu te dara du leen ci ump ma di leen leeralal ni sëriñ bi am na ci malaat benn boo xam ne benn malaat ci exemple fii ci toogaay bi du ma tudd tur malaat boobu rek mois de février ak mois de mars sëñ bi def na ci moom cinq cent cinquante huit mille ci benn malaat léegi ku ko def ci malade yu bari ñaata ngay dépenser échéance su dialyse bi malade bi war a fay nga xam ne ñi ngi dem Dakar te amuñu ku leen fayal soo fayalee kenn 65000 jëlal nga fayal 40 malade ci ñaari weer ñaata la kon nit ñi ab xaalis tudd ko yomb na mais yor ko yombut am na fii ci biir malade yi koo xam ne mi ngi def échéance yoo xam ne traitement am moom waxuma dialyse bi muy def mais traitement bi ko dal 5 millions 190 mille la novembre dama ko ne nañ tàmbali da nga faju defe naa kilifa yi xam nañ li may wax. mi ngi nekk cinq millions cent quatre-vingt-dix mille te juróomi weer fajoogum na ko xaalis boobu fu mu koy jëlee te kooku moo yoroon këram moo fa doonoon góor moo doon dimbali yaayam wëlbatiku tawat jooju daal ko kooku nañ koy def dañ koy seetaan loolu faagaagal ab famille la bu fekkee ci wàllu xari tabaski la am na ci malade yoo xam ne ñi ngi dégg sama baat sëriñ samay dem jël seeni xar jox leen sëriñ soosa nañ wax ne ndax Moustapha Diakhaté mas naa jëlum xar yóbbu këram man soxlawuma ku ma mayub añ soxlawuma ataaya soxlawuma reer ndax sama liggéey man na ko waaye kaay dimbali nit ku ma ko jox ma jox ko nit ka loolu na leer ci boppi doomu aadamay beneen bi ci des mooy ñu ànd sant gërëm Serigne Mountakha ndax confiance bi mu am ci man ba bu ma ko nee diw bëtam xongu na mu def ko loolu mënu ma ko koo fay waaye maa ngi moom ñi ngi am yeneen jataay yu dul faj sëñ xaali jaxate mën na ko seere sëñ ablaat mën na ko seere ndax ñun danoo bokk ci dëkk bi jàpp ne dëkk bi daa war a dox te lii koy doxal ay nit la te ñun dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañ ko war a doxal képp koo xam ne toog nga doon kilifa nekk Touba ci biir mbooloo na nga wax bis bu ma mas a ñëw ci yow ni la may mab gasoil wala may mab dépense wala abal ma oto du am par contre man maay jël sama yëf def ko ci yow kon nag nañ bokk ànd liggéey te yàlla rek tax ñu bañ cee dugal leneen loolu dana baax lool jataay bii nag sëriñ bi indi na fi barkeelu ak ñeneen ñi mel ni moom wutal nañ malade darab yoo xam ne dañoo bëgg darab yi bu malade yi demee di ko yóbbu seen kër nga xam ne ku ñëwati da ngay indaale sa darab nga xam ne dootuñu bokkaate darab yi defe naa darab yi 80 darab la indaale nañ fi tam enveloppe yoo xam ne lenn ci sëriñ bi la lenn ci ñi mel ni ñun la mi ngi nii enveloppe bu nekk mille francs moo ci nekk mi ngi nekk 780 80 mille ñu fas koo jébbal malade yi li tax ñu koy def mooy wan malade ni leen bis bi seen bis la te dañ koo ànd ak yéen waaye du ab am am du ab man-man lii feeñal yéene dong la waaye may ñaax sama bopp di ñaax ñëpp bu fekkee kàddu yi ma wax dëgg na soxna Ndeye Maguette maa ngi koy jéglu bu baax mais lépp luñ fi def yéen lañ koy defal te dañ koy def te yàlla rek tax di wax ni tey am nañ mbégte bu rëy teew fii ci centre dialyse bi ci hôpital Matlaboul Fawzeyni ngir màggal bis bi nga xam ni ci biir àdduna dañ koo jagleel jàngoro ji nga xam ni mooy euh, woppi insuffisance renal mu nekk feebaru roño di doyee di roño ci nit mu nekk nag bis boo xam ne bis am solo la te dañuy may occasion ñu mën a rafetlu taxawaay yi nga xam ni ñi fi daje kenn ku ci nekk am na ko ci xeex jàngoro jooju te ki jiitu ci taxawaay yooyu mooy Serigne Mountakha ndaxte bi ñuy sos centre bi comme niñ ko waxee euh, moom moo yëkkati siyaaram joxe ko ci ñaan ci itam ba mu tàmbali ba mu ko defee itam ba léegi. bokki taalibe yi nga xam ne ñoom la soññi ñu def loolu kenn ku ci nekk dugal nga ci sa ba tey suñ borom dimbali ñu ba ñu am centre boo xam ne bii am na fanweeri machine ak ñaar yu mën a def dialyse loolu euh, ki nga xam ne moo jaayante ni moom moo koy tabax ci alul boppam def ko kooku yaakaar naa amal nañ ko ci cant gu rëy rëy rëy waaye itam ministère de la santé bi nga xam ni bi mu defaree ba pare machine yi ñu ci installé moom moo ni léegi lépp lu koy doxal moom ministère dina ko gàddu gàddu itam li ñuy fay ci séance yi ndax malaat bu ciy def séance ba pare dafa war a fay ñaari junni yoo xam ne bii facture bu ñuy def la weer wu dee yónnee ko état état gàddu nit dina ko fay. daanaka booy xool weer wu nekk dina yegg ñetti million lay lay lay toll ci weer wu nekk ñooñu itam amal na leen njukkal euh, di sant itam di gërëm képp koo xam ne kii dugal nga ci saw ñaq tabal nga ci saw ñaq ngër centre bi mën di dox. ndaxte comme niñ ko waxee état moom moo euh, njaboote ñëpp waaye nag état xañ na mënul lépp ba tax na fi nga xam ne fa lay intervenir ñam fa fekk euh, bu leen yàlla dimbalee ba ñu am pas-pas bu fexe ba jàpp ci li état di def day tax mu gën a baax rek te loolu nag yaakaar naa fii ñu dëkk fii ñu nekk ci Touba fii la rawee ndaxte ki nga xam ne mooy Serigne Mountakha nga xam ne moo njaboote murid yëpp moom lépp loo xam ne bi ñu ngi koy def ci dëkk bi moom lañ koy defal ba tax na ni xam na ko te mu ngi ciy jiitu guddeeg bëccëg ci soññ taalibe yëpp kon nag tey dañuy am mbégte ak kontaante teewe bis bi di sant itam ki nga xam ni moom moo jiite yor feebaru jalis fii ci Touba muy sëñ sëñ Moustapha Diakhaté ndaxte dañ ko def ay kuréel yoo xam ne bi mi ngi déparé ca dakaar maanaam ci niveau national am na président national waaye itam ay am ay président ci dëkk boo dem ñu am kuñ jiital mu jiite ñooñu sëñ Moustapha Guèye mi itam topp ci moom bokk ci ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo jalis boobu kon ñooñu seen taxawaay ak seen yitte ci jàngoro ji ñëpp ñu ngi koy rafetlu guddeeg bëccëg lu ñu yëg ak lu ñu yëgul ñu ngi jëm a fexe nu ñu jàppale ñi nga xam ne ñoom la sama borom dogal ñu am jàngoro jooju te dafa nekk jàngoro joo xam ni jàngoro ju naqaree euh, faj la ndaxte li muy laaj ci wàllu koppar dafa bari te itam nit ñu ci bëri ñi muy daal xañ seen loxo jotul seen ginnaaw kon nag képp koo xam ne kii yaa ngi def ay jéego suba ba ngoon jot ngir mën a fexe ba indil leen loo xam ne bi moo leen dimbali loolu yaakaar naa képp ku ko def amee nañ ci cant xam ne gi am na fu mu tàmbalee waaye am mu yam te liñ ciy def yëpp ñun lañ ko defal ndaxte ñun la suñu borom dogal dénk ñu bërëb fajukaay bi ñu war a am euh, sañ-sañu fexe ba képp ku fi fajoo ñu mën a taxaw ba sa sam mën a ñoŋ kon nag li ngeen ci def yéen ñëpp gis nañ ko te xam nañ ne ñun ngeen ko defal ñu leen ciy sant bu baax di leen ci gërëm di ñaan sama borom dafa leen ci lu kawe seen njort ndaxte liggéey bu metti la jalis euh, dafa nekk loo xam ne bi dafa compliqué laaj ay frais itam ndaxte du wàllu machine bi ñuy utiliser kese waaye am na ay analyses yoo xam ne bi da nga koy def am aussi ay garab yoo xam da nga koy jënd te yooyu benn bu ci manqué rek mën naa indi jeexital ci paj bi nga xam ne moom ngay fajoo loolu moo tax ba ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ŋànk euh, li liggéey bi ñu ci def gis nañ ko te itam dañuy ñaan sama borom gën ko yokk ñi ngi sant itam ñi nekk ci biir centre bi di fi faj muy euh, ñoom docteur Niang ak ñi mu àndal nga xam ne loolu dafa nekk euh, liggéey bu mettee méttee méttee te liggéey bi ñuy liggéey na sous pression parce que ñi nga xam ne ñoom lañ koy defal dafa nekk ñoo xam ne bi dañoo taxaliko ak seen sago maanaam jàq ci jàngoor ji leen dal nga xam ne bis bu nekk nga war cee def ay séance ñoom taxawaay bu am solo ñu ngi ko ñu ngi ko ci am bu dégg bëccëg suba ngoon te bis bi ñuy def ci fir firndeel na ko ndaxte def nañ journée maye deret malade yi ci faju ñu ci bëri léeg-léeg dañuy néew dañuy manqué deret def nañ journée aussi dépistage pour ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir dëkk bi bëgg a xam seen euh, statu xam ndax am nañ ko am amuñu ko ñu ñëw ñu consulter leen aw am yoon mu leen jaarale pour que bu ñu ko amee ñu mën a xool nu ñu leen mën a toppatoo itam. ñoo ngi euh, euh, sant itam ñeneen ñi nga xam ne dañoo bokk ci biir hôpital bi di nekk waa administration ànd ak man ci liggéey boobu nga xam ne guddeeg bëccëg lépp loo xam ne bii sant bi soxla na ko fii ba Dakar. ñu ngi ciy taxaw ngir mën a fexe ba saafara seen jafe seen soxla yooyu ci biir centre jalis bi di ci sant itam waa district sanitaire ndaxte ñoom docteur Ndeye Maguette ñu euh, yore district sanitaire bu Touba nga xam ne bërëb fajukaay yi ñi ne ci biir Touba yëpp moom moo ko yilif am nañ ci taxawaay bu am solo ndaxte feebar yi ñuy faj fii ci biir euh, hôpital bi euh, bu ñu sañoon duñ ko indi ci hôpital te loolu li tax muy mën a nekk mooy ñu ref prévention yaakaar naa sëñ Moussa Gueye wax na ko léegi il faut que askan wi. ci wàllu post de santé yi wala ci centre de santé yi ak ci fi ñu dëkk ak ci village yi ak gox-goxaan yu gën a sori kenn ku nekk mën a xam loolu ba fagandiku ci jàngoro yooyu bu dee da ngay jël ay garab nga xool garab yi ngay jël yan xeetu garab la bu dee looy jëfandikoo ci wàllu ñamtam tam nga xool li ngay jëfandikoo nan la demee ba mu nekk loo xam ne bi lu sell la loo xam ne bi bu ñëwee ci sa biir du la indil benn gàllankoor ndaxte loolu suñ ko defoon gën koo yaatal ci askan wi xaj na dina fexe ba mën a gàttandu yenn jàngoro yi ba nga xam ne bi li ñëw fii lim bi du tax du bari noonu parce que Euh, li ñuy def def ay jéego ci machines yi ba léegi am na ñoo xam ne ñu ngi yaakaar bëgg a faju te mënuñoo faju mënuñoo jot ci machine yi ndaxte dafa am rang boo xam ne bii dañ koy toppante te rang bi tam pour nga jot ci dafay xaw a compliqué kon nag li ñuy wax daal mooy fexe ba gën a dooleel prévention bi dina tax ba xaj na lim bi gën a mën a wàññeeku li ñi tam gën a mën a néew kon daal loolu mooy ci gàttal kàddu yi nga xam ne woon dañu woon lu mu gàtt gàtt nañ ko ñëw yëkkati ko fi di sant ñëpp ñoo xam ne bi ñu ngi jàpp ci liggéey bi di leen seeral suñu ngërëm di ñaan sama borom euh, leen ci tawfeex ñu daje ci ak ngërëmal Serigne Touba ñu ngi sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf asalaamaaleykum. bokki jullit yi yéen bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu lu bari nuyoo bi ñu ciy jiital Serigne Mountakha xalifu général de Mouride ak waa santé gépp ndax ku nekk xam na ni santé ñooy taxawu peuple peuple Sénégal bépp ñu door a mën a am jàmm. ndax nit bu wérut du am jàmm kon ñoo ngi leen di jëfal bu baax a baax di jaajëfal it Serigne Moustapha Diakhaté muy kenn koo xam ne taxawaayam ñëpp rafetlu nañ ko ndax Moustapha taxawaayam ci social ku dëkk ci dëkk bi rek gis nga ci sa bopp ndax ni nga ci gisee sa sa bopp mooy loo xam ni danga ko waraana def te mënoo ko ka ko man di ko def bu fekkee ni amoo benn xolu kañaan rek war nga koo mën a témoigner seereel ko jëfum ci social bi man de wax dëgg yàlla Moustapha ab jëwam bari na fu ma koy dégg ci dëkk bi waaye kàddu yu rafet rek la koy jëwee Moustapha dina dem ba fa alalam wala mu fa matériel am jaay ko def ko ci social loolu yombul Moustapha doxiinu mag ña ak taxawaayu mag ña ak pëstéefu mag ña ak pas-pasu mag ña ca jël Moussa ni muy doxee du doxiinu gone doxeetu mag rekk la kon nag kilifa yi ni ci dëkk bi te nga xam ni seeni taalibe rekk yoo xam ne ñoo leen jiite ngir yàlla ak Sëriñ Tuubaa ñoo nekk ci dëkk bi nekk ci jafe-jafe yi ñu nekk muy jëlis kilifa yëpp lay jëkka woo muy njabootug sëriñ Touba gi teg ci nag ku yàlla mën a gan wala ku amoon sa dërëm sax wala sa ñaar dërëm nga bañ koo xeeb dimbalee ko ñii nga xam ni dañoo tëdd ci hôpital yi di def jalis te jalis ku nekk xam na ni bari na ay fere kon nag li nit ñi baaxoo di ko def nga xam ni dañuy bàyyi malaat bi ba mu faatu kenn ku nekk ñëw ni maa indi lii loole yàlla taxut li yàlla tax daal te mu teew muy toolub yàlla bi ndax mbindeef yàlla yi jaamu yàlla ñoo tool yàlla kon lii nga xam ne bii ni maanaam mooy jëlis bi maa ngi ciy woo ñëpp di ci woo sans bopp képp koo xam ne biin daal bëgg nga lu baax wala nga am lu baax ah sooy boo nga jàppale ñii nga xam ni sunu mbokki jullit lañ te mën a mën lu tuñ suñ seen bopp dara kuy def lu baax sooy boo nga jëmee ko ci Moustapha nag ah xam naa ni dinañ ko ñaanal sax waaye xam naa ni pakk mënu koo fël ndax Moustapha li koy ñaanal bari na te am na wéeruwaay ndax Moustapha ku wéeru ci yàlla la ak yonent bi ak Serigne Touba ku wékkiiru ci yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba day def ci alxuraan di def ci malade yi di def ci kenn ku ñu néewal doole ku ñu bëgg a néewal doole sax te tooñ ko Moustapha day jóg jël ci responsabilité am jàppale ko ca lam man Moustapha képp ku jaaxle boo ko séenee muy ñëw sam xel dina dal kon nag nan ko ñaanal. yàlla defal ko jàmm te kenn bañ koo fakkatal kenn bañ koo bodd kenn bañ koo tuumaal ndax Moustapha amul tuuma ci dëkk bi wala tuuma tuuma ju mu fi am muy tuuma ju rafet tuuma ju baax man nag maa ngi sant yàlla bi ma yàlla mayee xol bu ma mën a témoigner Moustapha ci baaxam ak ku ne ni ndax ku iñaan mënut te wax baaxu kenn boo gisee kenn ku baax ku fi nekk ci jamono ji léegi daanaka ñale xas mooy ëpp ña lay euh, ñay defar sab der muy kañaan doo nga ko waral waaye Moustapha moom wax dëgg yàlla mbiram dafa leer naññ naññ naññ ak bëccëg la du guddi kon nag Moustapha Diakhaté ñoo ngi lay ñaanal yàlla may la ndam ci lii nga ne waaye képp ku bëgg lu baax daal da nga jàpp ci paj mii da nga jàpp ci social Moustapha Diakhaté bii maa ngi ci woon njabootu Serigne Touba gépp di ci woo taalibe bi Serigne Touba yi am man-man yëpp di ci woo it nga xam ne bii nii xëy na seen man-man ma man-man matewu ko waaye nag bu ñu xeeb dara luñ am nañ ko dugal social bi ndax social bi kat maanaam muy liggéeyal yàlla ak untibi Serigne Touba muy jox nit mu lekk ak faj ko yaar yooyu moom lu ko ëpp doole amul kon nag ñoo ngi tënk suñuy kàddu foofu eh, di lu foofu ndax liñ xam ci Moustapha Diakhaté lépp ci lu baax mënuñu ko wax te yàlla doo nga tax ñuy wax nag Rafah TV votre chaine de télévision culturelle et religieuse waaw chaîne bi jug taxaw temm ngir yaatal lépp lu jëm ci wàllu diine rawatina njàngaleem Serigne Touba Cheikhul Khadim moo fas yéene nag gën a jege askan yi fépp fu ñu mën a nekk ci biir réewum Sénégal ak bitim réew ngir jàppale leen ci bépp xeetu événement boo xamante ne bii yéen a ngi koy amal te ngeen soxla wàllu couverture médiatique waaw publi reportage réalisation documentaire téléfilm waaw wala lépp lu ngeen mën di soxla yéen ñiy organiser ay màggal cant yi gàmmu yi cérémonie yi Rafah TV amul ci morom soo bëggee ñu filmer la diffuser la waaye boo bëggee itam ñu filmer la jox la say image wala say vidéo fépp foo bëgg nga yóbbu bu leen am xel yaar ci jokkoo ak ñun 77 433 39 39 Rafah TV waaw moo mën ci seeni événement